dañ doon waxtaan daaw ba ren daaw mi yëpp waxtaan nañ ko fii ci ay li de logement parce que ministère euh, euh, agriculture ay fonctionnaires la yoo xam di Sénégal amuñ indemnité de logement amuñ indemnité de risque parce que dañuy que euh, Euh, euh, ay tooke yoo xam ni ci la ñuy liggéey ak ay euh, mission de terrain yoo xam ni chaque jour ñu ngi ci lépp man leen cee dal amuñ indemnité de technicité muy wane ne seen xarala seen xam-xam ñi nga xam ne jàng nañ ba ay ay ingénieur ay planificateur ay agent technique d'agriculture yooyu yëpp amuñ benn technique indemnité de technicité amuñ indemnité de responsabilité buy wane ne kenn ku ci nekk fi nga toll bu fekkee def nga faute ci li ngay def euh, sanction bii lañ lay teg waaye amuñ benn indemnité boo xam ne bi ni jox nañ la ko léegi nag loolu ñu liggéeyoon ci ay euh, euh, at ay weer depuis daaw ba jëbal ko kilifa gi parce que moo ko santaane woon mun a dañ koy jox ministère finance mu jëbal ko ministère finance boobu ba léegi waxut ci yi ci yàbbiwu ci lépp loo xam ne lii nii lu jublu ci jiwu la ndaw yi téye nañ ko kenn du fi mën a am jiwu boo xam ne jiwu bu certifié la bu bu baax bu ñu séddale ci campagne yi léegi nag loolu ndaw yi téye nañ ko li nga xam ne mooy statistique agricole muy données yi xam ne ci la ñu sukkandiku pour tabax euh, euh, programme yi nga xam ne moom la euh, nguur gi di taxaw pour mën koo financer mën a su joyante mbay mi loolu aussi téye nañ ko